ñu ngi ci téere bii di arbain an ci xadis bu am solo te gàtt lool moom it an abi xamsata jëlee nañ ci baayu xamsa anas bun malik anas doomu malik radiallahu anhu yàlla na ko yàlla gërëm xadimi rasulillahi mi naana yonent ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam عن النبي مجلس ينتبه صلى الله عليه وسلم ودولكم وسلم قال واحنا لا يؤمن دقم أحدكم كن حتى يحب لويم بق لأخي نيال بقم ما يحب لم بق لنفسه نيال بقم حديث بو رواه صلى الله البخاري إمام بخاري ومسلم المسلم hadis bi ñing ko jëlé ci anas bin malik nga xam ne na yoonte Allah muhammad sallallahu alayhi wasallam ci dundam ba ci bi gërëm ko mosu ko wax lu tax nga def li dégg nga nee na yonentu kenn du gëm gëm yalla gu ma sëkk lu mu dem ba nga ne lim bëggal boppam moom la bëggal nit ñi sëgëm yàlla balaa mat foo nga dem ba yegg foofu nga xam ne li nga bëggal sa bopp moom nga bëggal doomu aadama yi <coughs> yonent nag ni mu waxee ci xadis bi mooy doomu aadama bi du gëm lu mooy mu bëggal nit ñi lam bëggal boppam mu bëggal mbokkam yi lam bëggal boppam laa yuminu ahadukum nag tekkiwul ne daf lay dàqal xeetu mboolem gëm yàlla déedéet daf laa bëgg wax ne doo jot dëgg-dëgg gëm yàlla gu mat sëkk feeg demoo ba nga xam ne nii li nga bëggal sa bopp rek moom nga bëggal nit ñi sa gëm yàlla matut comme nu ñëwee ci beneen riwaaya daf ne laa yablugu abdun xaqiqatal imaani حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير جام بجوت دق دق جم يلا فك دمود ببغل نني لم بغل بهم تلو باخ كون حديث بي تكون لي كو يغ فوف رك ديرت واي سا گم يالا ماتوس دسنا مانكينا لي لي يالا دقال جام مبولم خيتو گم يالا كوم نكو ورا القران فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما duñ gëm mukk fekk demuñ ba nga xam ne suñ amee jafe-jafe gërëm nañ yow nga atte leen te soo leen attee la nga leen atte mooy mooy mooy dëgg ci ñoom loolu la ñuy jàpp déedéet ñoom ñoo tooñ waaye koo xam ne ni atteb lislaam doyut la kooku moom gëmul xamul dara ci gëm-gëm dara parce que ponk ci ponk gëm yàlla yi dafa manqué te benn ponk bu manqué rek yëpp mabbu mooy ne lislaam jàpp ne att bu mandu la ku jàpp ne lislaam manduwut yow gëmoo gëmoo tus gëmoo dara loolu na yàlla wax afa tuuminoona bi ba'dil kitaabi wa takfuruuna bi ba'din da ngeen gëm leen li weddi leen li loolu mun nekk loolu moom ku ko def rek ab xéeféer la gëmu dara kon léegi-léegi yàlla dàqal nit gëm yàlla fekk léppi gëm yàlla la ko dàqal comme foofu léegi-léegi ñu dàqal nit gëm yàlla te dàqaluñ ko léppi gëm gëm na dara waaye gëm gi dafa dafa manqué lu war loo xam ne daf cee waroon kooku gëm gi manqué na bu baax niki li yonent bi wax ولا إلى يوم ولا إلى يومين ولا إلى يوم قيل من يا رسول الله قال من لا يؤمن جاره بوائقه مجنن ما يجن شاء الله جمود ما يجن شاء الله جمود ما يجن شاء الله جمود يقول كان مو جمود من يقول خم يدك ندور مي ولو نحيم ما نام سالسنا كرك دك ندور نيجي يا كار نلور له بس كي يوم نيتو مم نيتو مصيبة لا خم نيكو دك كرك مم يا كار est ce que doo ko lor ci alalam est ce que doo ko lor ci yaram est ce que doo ko lor ci njabotam est ce que est ce que parce que yag nga def lu mel non ba ko dekk du am dal ko gëm yàllaam manqué na parce que dafa bayyi lu war moy rafatal jëme ci nit ñi ba nit ñi xamé ko loolu <laughs> yag ñi ñaawal gim yag ñaawal ci jëme ci nit ñi motax ñepp diko moytu ko moytu kenn wóoluwut ko ko gëm yàllaam manqué na lu war dégg nga waaye nag gëm na moom muumin la waaye gëm yàlla gi dafa manqué loo xam ni lu war la kooku du dàqaluñ ko bépp gëm yàlla léeg-léegi dàq gëm yàlla dana ñëwee noonu léegi da ngay xool li yonent bi tudd ba wane kii gëmul rek xool bu loolu lu war la rek xamal ne gëm yàlla gii dafa manqué waru gar bu dee liñ tudd ne gëmut loolu ponk la ci gëm yàlla xamal ne kooku gëmul dara moom noonu nga koy xamee dégg leg leg nak ñu daqal nit gëm yalla fekk gëm yalla gi dafa manke luñu sop comme hadith bi لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه دوما رما دوغم فك دمول بو بغل مبوكم جوريتم لم بغل بوبم ام گم گي دافا مانكي لوي لوي سوب گم گي دافا مانكي لوي سوب باسكو bëgg nañ nit ki dem ba tollu foofu nga xam ni lim bëggal boppam rek moom la bëggal mbokk mbokkam yépp moom la bëggal nit ñëpp dégg loolu it moo ñëw ci seen xadis yi nga xam ne ni yonentu wax na ko laa yazni azzaani hina yazni wa muumin njaalo kat jamono ba muy njaalo gëmut sàcc kat jamono ba muy sàcc gëmut naan kër sàngara jamono mii naan sàngara gëmut ak xadis yu mel noonu nga xam ne nit ki dafa lu xaraam wala mu bàyyi lu ko war ñu ne gëmut gëmut borom xam-xam yi wutee nañ ci ñu ne yonent daf koo dàqal gëm yàlla ñi ne bàyyi bàyyi ko lislaam maanaam muslim la waaye nekkatul muumin am ñu ko firéelu parce que zahir xadis yi loolu lay tekk muslim la waaye amut iman ñi ne déedéet gëm yàlla matul lañ ci namm waaye am na imaan kay muslim la am na dara ci imaan mais gëm yàlla matul su gëm yàlla matoon du bàyyi li nga xam ni dafa war ci képp ku gëm yàlla gëm yàlla gu mat kon yomb de balaa sa gëm yàlla mat yi nga xam ne daf laa war sa yàlla nga def ko waaye jamono bi ngay def lu la war loo xam ku gëm waru koo def jamono bi ngay def loolu sa gëm yàlla manqué na moo tax mu ne njaalokat bi jamono bi muy njaaloo gëmut pourtant njaalokat bi boo xoolee ni xadis yi xadis yi si rot dafay wane ne jamono bi muy njaaloo yàlla simmi na yére gëm yàlla bu tuubee ñu delloo ko hmm. loolu day mel ni dañ ko simmil mboolem gëm yàlla mais ñi taawil nañ ko rek ne namuñ ci ne dañ koo simmil léppi gëm yàlla waaye dañ ko maanaam gëm yàlla am dafa manqué kon dañ koo simmil lenn ci gëm yàlla mais ni zaahir xadis yi dafa mel ni dara kon nit ki balaa muy gëm yàlla am di mat faw dana gëm yàlla ci xolom amul lenn lu lépp lu aju ci yàlla mu gëm ko gannaaw bu mu gëmee yooyu yëpp <coughs> lépp loo xam ni ku gëm yàlla da ko war a def mu nekk ci lépp loo xam ni ku gëm da ko war a bàyyi dafa xaraam ci moom mu bàyyi ko waaye tamit lépp loo xam ni sopp nañ ci ku gëm yàlla mu meloo ko sax mu def ko boobu lay gëm yàlla am doora door a mat bokk na nag ci liñ bëgg moom mi gëm yàlla mu melawoo ko mooy lam bëggal boo xam na ko bëggal mbokkam <coughs> jullitam la nga bëggal sa bopp bëggal ko sa mbokk jullit loo ci déggee mooy la bañal sa bopp ko sa mbokk jullit wala sax nga bañal ko nit ñëpp rek dégg nga mm. ndax waaye ba njëkk kii li naa si la wax te ñëpp rek sa mbokkam jullit la luy loolu mooy ni nga bëgg ñu jëflante ko yow xoolal loolu nga di ko jëflanteeg nit ñi ni nga bëgg nit ñi waxee ko ak yow ni nga bëgg nit ñi jëflantee ko yow ni nga bëgg ñu doxalee ko ak yow jëflanteel noonu ak nit ñi loolu mooy li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko nit ñi waaye ni nga bañ ñu jëflante ko yow. bul ko jëflante ak benn doomu aadama loolu moom yomb nit ku nekk moom xam na ni ni mu bëgg te nit du bëggal boppam safaan bëgg nga ko la wax wax ju rafet bëgg nga ko am ak yow jàmm bëgg nga ko la suturaal bëgg nga bëgg nga bëgg nga yow tamit amal jàmm wax ak wax ju rafet suturaal leen noonu damit bañ nga ko la lor. bañ nga ko jël sa alal lépp loo bañ ko la ko def wala mu def ko lu taq ci yow bu ko def nit bu ko def lu taq ci nit hmm? waaw wala sax wala sax boo xoolee xadis bi léegi ku manqué ci yow sax parfois nga bàyyi loo xam ne dafa war ci gëm yàlla parce que nit bëggut ko ko lor su demee di lor keneen rek bëggulul boppam lim bëggal boppam bëggulul ko nit ñi. te su boobaa comme que dafa lore kooku kooku moom la manqué warugar la. Hmm. mooy lore mu ngay te lore moom yàlla waru koo def macha allah am nga yaram am na loo ci bañ nit ñi am nañ yaram bu leen teg loolu nga xam ni bëggoo ko lu ko teg. am nga ay mbokk am na loo bañ ñu def leen ko nit ñi am nañ ay mbokk bul def seeni mbokk li nga bañ ñu def ko sax mbokk am nga ay waajur am na loo ciy bañ ñeneen am nañ ay waajur bul def waajur jàmbur li nga bañ ñu def ko sa sa waajur am nga alal am na loo ci bañ nit ñi am nañ alal seen alal bu ci def loo xam ne bëggoo ñu def ko ci sa alal soo soo melee noonu doo naxaate doo trian doo lor doo xaste doo def dara loo xam ni dafay ñaaw parce que bëggoo ko la ko def kon doo ko def keneen parce que yow li nga bëggal sa bopp rek moom nga bëggal ñëpp ni nga bëgg ñi def ko sa yaram def ko sa mbokk def ko sa waajur def ko sa alal yooyu tamit def ko ci yaramu keneen mbokku keneen waajur keneen ba mu jeex <laughs> xaalis bi boo xoolee boo xoolee buñ ko appliqué woon àddina neex. te sax moom waxul rek jullit ak jullit waaye nit ak nit rek ni nga jàmm ji nga bëgg rek fexeel ñëpp ñëpp am jàmm jooju loolu mooy kenn du gëm yàlla fekk bëggalul boppam lu mu bëggal fekk bëggalul nit ñi li mu bëggal boppam loo ci dégg mooy su fekkee la nga bëggal sa bopp di ko jëflanteeg sa bopp jëflante ko ak nit ñi. mom moom ak yow it la nga bañ da nga tek nit ñi la leen nakari yalla tek la la nakari so soo mu yalla la nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi soko defut gëmo de ku gëmut yalla fay la maanaam lay tek bo gëmut dal sa kaw yalla parce que ku gëmul am ak affaire soko defut côté bi nga manké gëm yalla yalla fofu la lay duma parce que yalla du demul duma lu muy gëm yalla gu manké legi bu bu côté bi nga manké gëm yalla moy yow da nga bañ ko lor waaye ya nga loré yalla lor la rek da nga bañ ko la ya nga xassé hmm yalla fexé ñaawal sa der nga am gatch go xamné da fay leer daañ ñepp di la xass hmm. da nga bañ ko jël sa ala ya nga jël al jàmbur di sacc rek yalla nattu la ñu jël sa alal waaw mom la bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan. عفوا عن النساء تعفوا نساءكم même man hadis bi la su ngeen bëggee seen jabar yi téye seen bopp yéen téye leen seen bopp yéen góor ñi bu leen dem ci jabaru jàmbur di di di njaalo rek sa jabar yi di mu yàlla natoo parce que ku nekk ni nga mel rek noonu la yàlla wutalee ñu mel noonu nekkul ne sa jabar sax yàlla def na soo jaar waaye daf laa booleeg ñu mel ni yow <laughs> daf laa booleeg ñu mel ni yow. mu ne baaxe leen seen baay seen doom yi baaxe leen yow bëgg nga boo amee doom mu baaxee la sa waajur faale woo ko su ko defee nag boo amee doom mu di la lor comme na nga doon loree sa waajur loolu yëpp yàlla daf lay jàngal ne la nga la nga bëgg ñu jëflante ko ko yow boo ko jëflanteeku nit ñi man na ngay jëflanteeg nit ñi laay jëflanteeg yow loolu la yàlla bëgg jàngal fii affaire bi de na ngay jëflanteeg nit ñi loolu la yàlla di jëflanteeg yow moo tax Cheikh Tidiane di wax ne ku yàlla nattoo sànq ak nit ñi dana la nattoo sànq ak yàlla pour yàlla man laa duma booy sànq ak nit ñi rek. am na àq yàlla yoo xam ne force loo ko mën a defati parce que yow da ngaa matalul sa diggante ak nit ñi kon sa diggante yàlla du mën a mat moomu fépp foo manqué le àq nit ñi rek côté boobu da nga fa manqué le àq na toll ci àq yàlla yi loo xam ne da ko war a defoo ko bu ko defee mu teg la la nga teg nit ñi. Hmm. moo tax ñi xam yàlla ñëpp lañ gën a ragal mooy yereel xaq doomu aadama yàlla buur bu baax la wala ko yaa rabbi rek mu baal la moom. <laughs> ak baax waaye moom boo tooñee nit ñi yoonam ne ko si tànk nit ñi baalu la moom du la baal moo tax tooñ nit ñi moo gën a xaw a sax diis ci côté boobu. Hmm. xaw a gën a. diis yàlla nañ ci yàlla musal. kon doomu aadama ni mu bëgg boppam na ko jëflanteeg nit ñi lim bañ ñu teg ko ko bum ko teg nit ñi. su ko defut na muy jëflanteeg nit ñi moom la yàlla di jëflanteeg moom yàlla kat xajul fenn de kon nit ki nay laay biir nit ñi maanaam di leen wax lu leen amal njariñ ci àddina ak ci waaye gis sa mbokkam jullit mu ngi dugg ci ab musiba boo xam ne daf koy lor nga ne tekk seetaan ko di yàkkamti mu gaaw dugg fa ba mu dugg fa nga ñëw naan ko ah doxaleel nii doxaleel nii yow yow yow mënoon nga koo laaya biir avant mu fiy dugg amoon nga pexe moo mën a def ba du fa dugg mais nga seetaan ko seetaan ko ba mu dugg ci ba pare hmm? nga taxaw di ko di ko laaya biir musiba loolu du laaya gis nga yow boo. boo demoon bay waaj a dugg ci musiba ni ngay mel boo xamee ne lii musiba la ni ngay pexe yi ngay def pour yow nga génn ci fexeel bu nit war a duggee ci musiba nga def pexe yu toll noonu pour génnee ko ci daf lay jëral sax mu mere la daf lay jëral mu bañ la daf lay jëral mu wan la gannaaw waaye bu mu dugg ci lii parce que xam nga ne baaxut ci moom parce que bu doon yow ak lu mën a xew doo ci nangoo dugg. comme que xam nga ni musiba la pour moom rek defal loo man pour moom mu génn ci maanaam dañuy jàpp ne yow yaa nekk palaasam yaa nekk palaasam lii la yàlla sant ñu mel ko ak doomu aadama yi moo tax wax na ko ci beneen laaya ne ku rey benn bakkan mu ngi mel ni rey na nit ñëpp fa ka annama qatala naasa jamian ku dundal benn bakkan mu ngi mel ni dundal na bakkan yépp xam nga moom la bëgg jàngal foofu dafa laa bëgg wan ne ku gëm yàlla mooy koo xam ne nii moom dafa jàpp ne dafa eh, jàppee nit ñëpp boppam dafa jàppee ni ñëpp boppam yàlla dafa leen bëgg wax ne foo ngeen dem ba nga xam ne kenn ku nekk nim bëggee boppam nim mel ci boppam noonu la mel ci ñëpp loolu la bëgg jàngale ci laaya jooju moo tax mu ne boo reyee benn bakkan yaa ngi mel ne rey nga ñëpp tey par exemple nit bu ñu reyoon mbokkam mi mbokk ak ndey ak baay dafay mel ni moom lañ ko def ndax noonu la koy naqaree su fekkee nit la laa wax de. xam ya. oh, am ñoo xam duñ nit ñoom comme comme bàyyi ma waaye seen bokk sa ñu ngay ñoom wala boobu ñoom ñooy rey seen bokk ya waaye nit laa wax man nit waxuma rab am na ñoo xam ne am nañ tànk nopp waaye jikkoy rab la yore su fekkee nit nga yaa ngi am yërmande sa mbokk bi nga bokk ak rek ak bàyyi wala sa doom wala sa waajur ku ñëwoon tër di ko rendi yow dafay mel ni yow la ñuy def lii do do doo ko seetaan dafa bëgg wax ne même jàmbur bi la sori suñ koy rey na nga jàpp ne yow la ñuy rey parce que buñ ko reyee rek mu ngi mel ne rey nañ la loolu la bëgg wax nit ñi ne leen yéen doomu aadama yi noonu nii ngeen war a mel yéen ñëpp benn ngeen ba suñuy rey kenn na ngeen jàpp ne yéen la ñuy rey buñ loolu lay rey nooy def da ngay taxaw seetaan ñu rey wala da ngay défendre sa bopp te mën ngaa défendre sa bopp da ngay défendre bopp maanaam suñuy rey doomu aadama na julli ñëpp taxaw défendre ko comme ñoom la ñuy rey loolu la bëgg a wax mais ni nga bëggee dund mucc ci bépp alkande noonu nga war a fexee doomu aadama yi am dund boobu mucc ci bépp alkande kon ni ngay fexee pour yow nga am dund boo xam ne dund bu neex la yaa ngi si jàmm ak salaam noonu nga war a fexe doomu aadama yëpp am dund boobu loolu mooy soo dundalee benn bakkan yaa ngi dundal ñëpp maanaam suy benn bakkan di dund na nga kontaan na nga bég ba mel ne yow yaa nekk palaasam parce que yéen ñaar benn ngeen. laa yajuz même xadis bii lay firi waaye léegi tey nga gis nit koo xam ne ña ngay rey mbokkam jullitam moom mu bokk ca pexe moom wala boog ña rey mbokkam nitam mu bokk ca pexe wala mu man cee def euh, dara ba du dee mu seetaan nga sama yoon nekku ci kay parce que yow yaay moom moom mooy yow xadis bi ñu bëgg a jàngal ne yow yaay diw diw mooy yow benn ngeen su lu ko dal rek yow la dal loolu mooy buñ ko reyee rek yow lay rey maanaam kon buñ ko gaañee yow lañ gaañ. buñ jëlee alalam yoo leen jël sa alal lépp looy def nag buñ jëlee sa alal li ngay def ba sa alal dellu ci yow buñ jëlee sa alalu mbokk defal loolu ba sa ba alalam dellu ci moom buñ la loree ni ngay def ba génn ci lor bu buñ loree sa mbokk defal noonu ba mu génn ci loolu maanaam maanaam xadis bi xaw ma ñu ñu ngi seetlu li ma bëgg a xam déet waaye mu ngi bëgg woon nit ñi ne leen benn ngeen. bu leen di lorante bu leen tooñante bu leen yàqalante na ngeen bëggante na ngeen dimbalante ba kenn ku nekk lu ko okk yéen la okk lu ko nar a okk yéen la nara a okk ni ngeen di taxawee pour défendre seen bopp na ngeen ko taxawee pour défendre kooku su boobaa boo melee noonu soo gisee sa mbokkam jullit da nga ko laaya biir ci lépp loo xam ne yow bu doon yow noonu ngay taxawee te boo koy laaya biir doo triser da koy wax lépp loo xam ne yow bu doon yow. taxawaay bii nga ci am waaye doo ko bàyyi moom ba mu yàqu la bokk na nag ci ray nit nga réeral ko réeral nit moo gën a bon rey nit bakkan ba rek nga rey waaye boo réeralee nit nga rey boo ko reyee ñu ngi ko yaakaar aljana ndax dafa shahid mais soo réeralee bakkanam yaa ngi moom yëpp bu leen yàlla dimbaloo safara ngeen jëm kon réeral ko moo gën a bon rey ko su nit doon ñëw pour réeral sa njaboot nooy mel loo mën a taxaw waaye boo mën a taxaw pour njaboot googu mucc duñ réer ci réer lu jooju danga ko def danga ko def parce sa doom la. kii daf koo bëgg a sànq bëgg koo réeral bëgg ko awale ci yoon bu baaxut taxawaay bu ne da ko taxaw pour bum pour xale yi bu ñu réer xadis boobu daf wan ne la soo gisee kenn ku jëm ci yoonu réer walla boog nit ku taxaw di réeral nit ñi yow na nga sol mbubam waajur woowu fexe loo man def ko pour nit ñi gindee ku bañ a réer bañ a réer na nga taxaw taxawaay boobu waaye bul wax sama yoon nekku ci déedéet parce que yàlla dafa ne ku rey benn bakkan mu ngi mel ne rey na ñëpp te réeral bakkan moo gën a bon kon ku réeral benn bakkan da jàpp ne yow la réeral sa doom la réeral sa waajur la réeral say mbokk la réeral loolu dafa la war a naqari waaye léegi dañ naan ah man de man mucc naa rek jeex na keneen moom bu réeree sama yoon nekku ci déedéet demeewul noonu li nga bëggal soo gisee koo xam ne nii mission wóor na la mooy sànq nit ñi ak réere leen ak nax leen ma ne loo mën a def ba nit ñi moytu loolu ba nit ñi gindeeku ci loolu ba nit ñi mën a tegu siraatul mustaqim def ko nañ la ci mere nañ la ci ŋàññi nañ la ci xas nañ la ci nàngam mais yow sa yéene na nekk man lañuy ñuy réeral te bëggumaa réer kon lu ma mën a def ba sama mbokk yi nga xam ni man ak ñoom benn lañ bopp la am ñu am bopp ma am bakkan ñu am bakkan ma am nopp ñu am nopp wuteewuñ dara lu ma leen mën a leeralal ba bu ñu rek naa ko def hmm? taxawaay boobu nag borom xam-xam yaa ko moomee taxawaay fexe ba bakkan yi nekk ci jàmm kooku nguur yeeg borom doole yi ak ñi nga xam ne nii ñu ngi am nañ kàttan dal ci kaw nit ñi ñoom ñoo ko moomee nañ jàppee nit ñi seen bopp boroom xam-xam yi nañ jàppee nit ñi seen bopp borom doole yi nañ jàppee nit ñi seen bopp sa mbokk bu ñàkkee yow yaa ñàkk kon fexeel mu am yoon wi nga jaar ba mu am tegtal ko yoon woowu rek waaye ko may ay dix mille franc cinq mille franc bu nekk mu ñëw nga di ko jaamloo amul njëriñ bëggoo ko def loolu mën ngaa dimbali nit ki ba du sonnati dimbale ko ndimbal mooy nga jox lu am doole loo xam ne moom it dafay am moom it mu am bëgg-bëgg boobu ak yéene boobu ci nit ñi keneen am bëgg-bëgg boobu bu yàggee nit ñëpp am su fekkoon ne kenn ku nekk dafa jàppe nit ñi boppam ñëpp nekk ci jàmm kon musiba dana fi jug kon jullit dafa war di laay biir mbokkam jullitam jàppee ko comme boppam fexe xaq yi nga xam ne nii mbokkam mi am na ko mu di ko mu di ko matal fexe respecté boppam parce que loolu la bëgg ñu jëflanteeg moom. fexe jox gëdd mbokkam moomu wàccee ko wàcc waayam bañ di ko tuutal dégg nga fexe toujours muy xool intérêt mbokkam moomu mu di ko ci jëriñ intérêt rek lay xool su gisee loo xam ne xamut ko te baax na ci moom mu waxal ko ne ah naa ma nga nerali léeg boo ko boo ci duggoon wala léeg boo ko defoon dana la jëriñ naa nga ma nangam def ko mu def ko waaw te fu mu mën a yegg nag na santal yàlla rek parce que yaa ko tegtal ci yoon te yow fu mu yegg rek yaa fa yegg nit ñi dañuy wutu wante ñëpp mooy ñoo yem nag benn garaat dañuy wutu wante am na foo xam ne mënoo faa yegg sa morom yegg na fa kon yaa fa yegg rek moom mu jàpp ne yow mii nekk foofu yow nga jàpp ne moom moo nekk eh, foofu mm. su ko defee li nga bëggal sa bopp rek moom ngay moom koy bëggal ngeen dimbalante kenn du lor sa morom. ndimbal li gën a mag nag wax naa ko léegi mooy soo gisee diine sa mbokk mi diineem nekk ci risque nga dimbali ko xettali ko ba ba mu tegu ci yoon loolu mooy ndimbal li gën a mag parce que diine bu yàqoo lépp nit ki yàqu na safara la jëm hmm. waaye diine bu baaxee léppam baax na àddinaam day baax sa àllaaxiraam baax hmm. kon mission bi gën a rëy hmm. mooy nga fexe ba nit ñi seen diine mucc mooy mission bi gën a rëy te gën a métti parce que balaa nga koy def foo ñu de foo ñu de la da wax naa la la sooy fexe sa seen diine mucc ñu wax la la ñu waxoon yonent yi ama hada illa bashirun mislukum yuridu an yatafaddala aleykum ah kii nit la rek daf leen bëgg a gën loolu rek yàlla yónni ab yonent mu ñëw pour laay leen biir seen diine mucc ngeen naan dafay wut ngëneel kaw rek daf ñoo bëgg a gën bëgg a gënee ku lay wax ne kay lii mooy yoonu yàlla lii di yoonu yàlla lii boo ko defee am ngërmaane yàlla di ko teg ci wax yàlla ak yonentam tonk yow defal rek ku ki amut ay bëgg gën naa nangam amut fa mais du tee ku yàlla na loolu bul déglu wax yooyu dangay jàpp ne yow ñii yaa ngi ñoom yéen yem te lii ñàkk xam rek bu fekkee ñu ngi def lu jaaduwul laa wax ñàkk xam moo tax ñu koy def kon yow yaa koy def loo mën a def bañ génn ci rek def ko loo ci mën a dajit nga sant ci yàlla moo tax yonent yi ñaareel mos ñoo xàddi kenn ñenn ci mag ñi dañ daan wax ne ñu bëgg yàlla dañuy xool ci leeru yàlla gis gi ñuy gis gisee ci leeru yàlla moo tax dañuy yërëm ñuy mooy yàlla bañ nañ jëf yu bon yi ñuy def gaa mais dañ leen yërëm yërmaande googu nag moo tax ñu leen waar di leen fàttali li yàlla bëgg di leen wan jëf yi nga xam ne safaan la ndax ragal ëllëg ñu dugg safara nit ku gën a jege yàlla rek mu ëpp yërmande ci mbindeef yërmande gi mu am ci mbindeef nag moo tax mu naan ko moytul lii parce que xam na ne loolu risque la ci moom defal lii xam na ne loolu mooy li koy jariñ loolu yërmande rek moo ci posé nit ñi su ko defee nag ki yàlla na too mission boobu. waxuma ne sax dafay jappé nit ñi dof waye par exemple leg leegi nit dana dem di fajj ko xamni xel ma nekku fa mu diko dóor ndax dafa mo ndax momi dafay jàllal bi ko rek simé ko commencé xex ak dof ba day xamni ki xel may ñëwagul rek day naxante mom ba fajj ko mais dóor yooyu du ko merloo du ko wàññi dara mais tamit soo yàlla to ku mel nonu nga diko ko bir mom mu di la lor da ngay jàpp ne xel may fi nek góor rek fi la xelam toll nga naxante mom ban noo ko loolu moo doon mission yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais daaw topp nit ñi seen melokaan yu yooyu noonu nga xam ne ni ñàkk xam moom moo tax parce que da dafay jàppee boppam nit ñi dafay jàppee boppam nit ñi kon doomu aadama bu nekk war na di war na di def loolu ku yàlla wërsëgal nag sa xol mel nii ma wax nga xam ne ni yow nit ñi ngay gis sa bopp sa bopp ngay gis ci nit ñi. xamal ne texe nga dugg nga aljana ndax yonent sallallahu alayhi daan wax ne ku bëgg yàlla soril ko safara dugal ko aljana na fexe jamono ba muy dee muy gëm yàlla di gëm bis penc di jëflanteeg nit ñi nam bëgg ñu jëflante koog moom noonu la wax waaye lii xam nga ne ku la ko defoon du la neex ba pare nga di ko def nit yang ci risque mo sa wax ben waaye nako ndax bëgg nga aljana mu nako ko waaw mu sambok komnit, na nga bëggal sa mbokk li nga bëggal sa bopp kon da ngay bëggal sa mbokkum nit li nga bëggal sa bopp So amé yéene bu rafet ci nit ñi ñepp mëno leen defal lu rafet waye ba nga amé yéene bi di jëm lo man ci lu rafet rek yegg na ci nit ñi so amé melokan bobu yalla da lay fayé sa yéene parce que yow sa yéene moroon nit ñëpp nekk ci jàmm yàlla daf fay ku jëf jëf nit ñëpp nekk ci jàmm yow nu mu rëyee de yàlla loolu la lay fay parce que yow loolu mooy sa yéene yàlla ki gën a bëgg mooy ki ëppal njariñ mbindeef yi yow bu fekkee mbindeef yëpp da nga leen xoolee sa bopp amul xàjj ak seen parce que xadis yi naas lay wax nit ñi nga xam ne nii léeg-léeg da lay wóor na li nattu yàlla mënoo ci dara comme bu la natt daloon mënoo ci dara da ngay muñ rek. waaye soo sañoon tamit nga nekk ci jàmm nit ñëpp mel ak ñoom noonu xaal bi ngay dund sa bopp daal nga bëgg ni ñëpp mel ko nga xam ni tey koo ci mën a xettali rek kooku mu mucc na moom. Hmm? nga dem ba nga xam ni tey hmm, mën ngaa fekk tey yàlla may naa la doole nga mën a fekk benn miskin ñëw ne la diw man de sama kër a amul dépasse bëggoon naa daal nga amoon foofu ab 5000 wala 10 000 ma dépassoo ko. mu ne ko waa toogal xaar ma mu toog xaar la nga ñëw nga dugg ci biir ñëw wax moom wax ju rafet wax ju sedd xol bu ko defee génne ab enveloppe jox ko mu ubbi enveloppe bi muy cinq cent millions téeméeri millions euh, kii euh, moom dix mille la nga jox ko téeméeri millions gis nga njàqare gi ko génne. Hmm? li nga gini gi ngi ko génne li nga jafé jafé yi ngi ko génne su yalla fay rek sa lepp bax parce que yow bo taxone place bi lu mel ni mo lay doy ku lay wo nyak tay pour nga régler ko nga régleel ko njàqareb adinam lepp ku nekkon ci fitna bo xamni ni moo ko yóbbee muy ñaan nga génn ko ci fitna boobu yëpp parce que yow su ron yow li mo lay doy kon entre mom nonu waye nga mën ko dimbalé bu do amati problème nga setan ko muy nek ci ay jafé jafé loolu yalla xam doy ta nak li nak li ci gën moy kala gëna jégué kala gëna jégué kala gëna jégué kala gëna jégué ba ci gëna a limbal ci sa weewu mais bàyyi say dom ak say mbokk ñuy torox ñuy son amuñ dara nga ci ko xamni deug la sa bop nga ko jappé sax waaye daf la gëna a sori nga dimbalé ko yow yow li nga def amuñ njëriñ sàmm alaar la sàmm alaar mom amul njariñ waaw mais nag da ngay commencé suuf di dimbale di dimbale ñi ci kaw xëy na sa loxo fa yeggagul waaye su fa sa loxo yeggoon ma def ko fa. Hmm. loolu la la yàlla di loolu la yàlla di gërëm su boobaa yow da nga am tiyaabaab ku dimbale nit ñëpp am tiyaabaab ku jàppale doomu aadama yëpp lii ma leen wax nag du sama wax bopp waxu yonent yàlla na sallallahu alayhi wa sallam gis nga boo ko melee sa bopp rek ngay jëriñ boo ko melut doo changé fifteen ci ndimbalu yàlla misqaala zarra doo ko changé ci ndogalu yàlla te da nga am meram yàlla adduna bi ni ko yàlla tëralee rek noonu lay demee melokaan bii ñu lay wax ne la bëggalal sa bopp ni nga bëggee nit ñi koo gis rek gis ko sa bopp parce que nit ñëpp si cosaan lañ de lañ jógee aadama fu kon yow yaay diw diw mooy yow te mooy dëgg li nga bëggal sa bopp bëggal ko ko. nga gis ne mooy yow yow yaay moom soo ko defee da nga am jàmm danga nga am raaxatul qalbi doo añaane kenn doo soxore kenn doo fiire kenn te xewal gu nit am rek nga vérifier sa xol gis ne yow yaa ngi kontaan ba mel ni yaa ko am fitna gu rek nga nga vérifier sa gis ne yow fitna boobu mu la naqari kooku xolam day mucc mucc ci añaan ak jëw yàqalante bi jikko seytaan yëpp da ci mucc kooku mooy nekk jaamu yàlla bu baax a baax a baax lu neex mbokk jullit mbokkam mi moo ko neex lu leen naqari moo ko naqari hmm? waaye ku jël xolom def ci fitna yi def ci añaan soxor bañ nit ñi jàpp ne moom rek moo war a am keneen ku am dara sax mu naqari ko xam nga lu muy def day xatal boppam rek hmm? Hmm. day xatal boppam waaye. waaye du changé dara ci ndogalu yàlla loolu am na njëriñ amul njëriñ añaan dafay waral doo bëgg doo bëgg gis kenn ci kaw wala ku tolloog yow yow daal da ngay bëgg toujours rek dañuy nekk si sa suuf añaan mooy waral loolu mën ngaa gis sax koo xam ne commerçant bu mag la ah, gis kuy soog a door mu commencé ko fii nu mu ko mën a pousse pour mu wàcc sax noonu lay def pourtant moom am na am na am na oto kii amagul sax benn seretu mbaam waaye waa bu jëndee mbaam sax xol baa ngi commencé dagg parce que xoolal léegi jënd na am mbaam xol ah, xoolal toolam ba nu meññee ah, te yaa ngi am oto de ëppale ko fuuf waroon koo puus mu dem war a xam yoon wi nga xam ne boo ko fa tegee bu ëppalee sax wala mu mel ni yow mais da koy wàcce na puusu rek da gis kuy fiiri kum raw. loolu ba njëriñ la parce que jàppul ne moom mooy diw diw mooy moom hmm? Hmm. noonu lay amee ci borom xam-xam koo xam ni kooku sax ci la gën a bon nga ne am nga xam-xam ba pare def sa xol bi añaan ba sax nit ñi di wax ne añaan boo ko bëggee xool xool sëriñ ci loolu moom war nañ ko dindi mais hmm? boo bëggee gis añaan rek dama ak fiiraange demal ci sëriñ ci loolu sëriñ du añaan du fiir loolu day demal si ñuy sëriñ sëriñ la sëriñ <laughs> kay du añaan du du fiir parce que dafay jàppe boppam comme comme nit ñi nga xam ne lu mu am rek bëgg na nit ñëpp am ko loolu na yàlla bëgg waaye bëggul koo xam ne toujours dafay bëgg nit ñu nekk ci suuf moom mu nekk ci kaw متلقان تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عقبة للمتقين الآخرة نكون مومون يا حمد دون بغ ريلو شكو سوف بغن يق بغن ريلو يوم جام مرلين بغن بول نيب نيون نيويو الآخرة وينك مؤمن سرلو mooy soo bëggalee nit ñi lu baaxit du te waroo nangu kenn ku la raw moom ci ab jaamu yàlla wala loo xam ne dafay gërëm loo yàlla teewul it nga am lu baax te yaa ngi fexe nit ñi am ko waaye sa xol moom bokkut carrément nit ñi raw la ci lu baax loolu it loolu it euh, ci lu ñu naan ñi di la gënut que yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi benn waaye daf ko mos wax ne ko ah man de yàlla daf maa may taar gis nga lim ma may ci taar bëgguma nag kenn ku ma ëppale taar boobu lu mu ndaw ndaw ndax loolu beew la yéen su ne ko déedéet du beew beew mooy nga bañ nit ñi nga bañ dëgg xeeb nit ñi mais nga rafet bëggoo ko la gën a rafet loolu moom du beew dégg kon léegi-léegi yàlla may la dara loo xam ni bëggoo ku la ci ëppale waaye nag soo sañoon ñëpp mel ni yow dafa gënut mais loolu du tax ñu ŋàññi la foofu mais nag dese nga tuuti nag dese nga tuuti parce que boo gënoon boo mataroon yow da gën a leen ñu sas sa bopp amee loolu du tax la hmm. nga am yow bëggoo ku la ci ëppale mais ku la ci ëppale it doo ko añaane doo ko xeex doo ko def dara mais soo sañoon tamit jotaat ko walla nga mel ni moom mais tamit loo ko mën a dimbalee yaa ngi koy dimbalee maanaam bañ ko mu ëppale la yàqulu la si jëflante moom dara te su la laajee xalaat la la ngay digal sa bopp nga koy digal loolu moom dara nekkut amaa su fekkee bañ mu ëppale la nag tax na nga di ko xeex tax na nga di ko nga nga jàppee wootoo ko sa bopp tax na la mu yore sax nga bëggoon mu ñàkk ko su boobaa loolu moom lu ñuy ŋàññ ma bañ ma ëppalee rek loolu moom jàpp naa ne mm, loolu ci xadis bi ni mu loolu dara nekkul ci même bu fekkee taxul nga jëflante moom jëflante bu doy waar mm, loolu yàlla moo ko moo ñaare ci xol yu ci xol yu bari nit daal bu la ëppalee dara da ngay xool lam la ëppalee bu dee ci wàllu diine la ni ki xam-xam jaamu yàlla ah loolu moom waroon na mu ëppale la Mm. ah parce que foofu yàlla ñoo sant ñu njëkkalante fa wa fi daalika falyatanafasil mutanafisun lu baax lañ ci war a rek njëkkalante ku la ëpp xam-xam da nga ko xormaal da ko bëgg mais da nga jiituwanteeg moom pour am xam-xam bu mel ni bu mu am wala bu ko raw ku la dàq jaamu yàlla mi góorgóorlu ba jot ko ci loolu kon ku la ëppale ci wàllu diine war nga ko war ngaa góorgóorlu ba mel ni moom foofu. duñ wax ne loolu luñ ŋàññi la parce que mbiru diine la foofu yàlla daf ne fastabiqu wa saabiqu nañ ci rawante course la mais nag course boo xam ne du ànd ak nga añaane sa morom da nga koy nangul lim am respecté ko jox ko cëram waaye nag du ma nangu des gannaaw ci mbiru yàlla. ñàkk bañ a des gannaaw bi du tee da ngay jëfante moom ni nga war a jëfante moom bu dee ci wàllu àddina la ëppale nag ah, su boobaa. Eh, man nga am bibit am lim am waye garus su fekke da nga am bibit rek am lim am ci aduna mais añani woo ko soxre woo ko yaa koy laay bir yang ngi ak mom lepp lo xamni boko boo won mom ngay moom ak mom hmm su boobaa balul dara nekku ci hmm. waye lutax ñuy bañ nga lim am moy ñaaral mëna andi añaan mëna andi nga di ko xeex andi nga di ko mën naa andi su amee gënee am xewal sax yow sa xol bi di am lu ko naqari parce que nga ko bëgg jot te jot mënatoo koo jot moo tax ñuy bañ ngay mbébét lu yàlla jox nit ci wàllu àdduna mais wàllu diine moom boo xoolee diine comme que tax ngay def moom ñaare yooyu moom la alquran wax wala tamanaw ma faddala allahu bi baadakum ala baadin bu leen li yàlla gënale ñenn ñi si ñenn ñi ci wàllu àddina bëgg nga xool ki nga ki la faree suuf. wal yàlla ñu bëgg nga xool ci la faree kaw parce que foofu danga war a njëkkalante waaw te xormaal ñu la jiitu ma wala adduna nag moom li nga am doo na la kon xoolal ñi nga tene rek ña la boo leen xool bu yàggee mu indee la añaan ak soxor. moom la alquran di wax ci xaaruuna ak nitam yi xaaruuna fa xaraja ala qawmi fi zinati qaala alladina yuriduna xayaata dunia yaa layta lana misla ma utiya qaaruun innahu la du xazin azim ah, qaaruuna génn ak taaram ñooy àdduna dimbi ba naan yelante koon ñi am li qaaruuna xam wa qaala alladina uti alma ñi am xam-xam ne waylakum taskara ñaan na leen sawabullahi xayrun liman amana wa amila salihan tiyaaba bi yàlla moo gën fuuf ci ku def lu baax maanaam bu ngeen mbébét bëbër leen pour mel ni ñu baax ñi bëbër leen pour mel ni borom xam-xam yi bëbër leen pour mel ni jaamukatu yàlla yi waaye bu leen bëbër pour mel ni nitu àdduna yi loolu du dara kon ñàkk koom bëbër moo gën parce que bu yàggee moo indil añaan wala bëgg àdduna wala fàtte alaxira kon ñàkk koom bëbër moo gën waaye lu baax moom boo koy mbébét di ko def rek muy raxas sa xol ba du la indil añaan moo tax lu baax moom den mbébét di ci yokk toujours. parce que dafay gën a raxas sa xol rek da nga mbébét jot nit ki mais da koy bëgg waaye mbébét jot nit ki ci àddina ba pare bëgg ko ndaw lu jafe ñaareel dafa indi problème moo tax wala ñu bëgg bul mbébét ku la raw ci àddina lam am bu ko faa bu ko faale sax dégg tax borom xam-xam daan nañu wax ne iza raayta man yunaafisu ko fi dunya fa naafisu fi diin boo gisee kuy njëkk njëkkalanteeg yow ci àddina yow na nga njëkkalanteeg moom ci diine. na nga njëkkalante moom ci diine kon jaam bi ni bëgg ñu jëflante kook boppam na ko jëflanteeg nit ñi loolu wax ju yaatu la jaam la ko yàlla may na bëgg ñépp am ko bañ gi bañ nag nit ñi raw ko ci moom mu nekk ci suuf ak lu ko yàlla may lu mu mën a doon garaawut dégg nga su fekkee yóbbeewul ko benn jikko boo xam ne jikko bu yàlla ŋàññi la dégg nga yow jaam bi ña kaw ci wàllu àdduna bu leen xool lañ cee ragal mooy mu indil la jikko bu yàlla ŋàññi su fekkee nag yaa leen xool te indiwul la benn jikko bu yàlla ŋàññi dafay mel na yaa leen raw sax waaye nag bëgg nga yegg seen maqaama loolu dara nekkut ci. waaye dafa yombut moo tax. ammaa ku la raw ci wàllu diine moom moo xam xam-xam la moo xam nu mu mën a doon góor góorgóorlu pour yegg ci maxaamu boobu mu nekk. mag ñu baax ñi lañ nekkoon Ibn Abbas bu daan jàng alquran ba yegg ci benn laaya daf naan léeg-léeg ma romb ci benn ma laaya di mbébét la ma ci xam yellante koon ñëpp xam ko ci. ne léeg-léeg ma jàngal benn laaya ba gis ci dara ma doon mbébét nit ñëpp xam li ma xam ci laaya ji. ndax xam-xam bi neex gi neex ci moom ak set gi mu set mu doon bébét ñëpp yëg li mu yëg ci laay ji ndeysaan yeneen ci koon it rijaalullaahi sufiyanke yi la ñuy yëg ci alquran la ñuy dégg ci waxu al yonent bi yeneen ci koon ñëpp dégg lu mel noonu yeneen ci dégg lu mel noonu ndax ndax set na set na bu la yàlla uñulee kiiraay nga gis mu muur ko nit ñi da leen yërëm da ngay bëgg si yàllanti koon ñu yegg si fii yàllanti ñu yegg si fii loolu la Ibn Abbas daal di jëfandikoo ñenn ci mag ñi buñ demoon bay bëgg a dog sax xoor ba bëgg a dog dañuy wax benn xale ne ko indil ma tàndarma ji ak ndox ji pour nga am sama tiyaaba ndax ki la indil eh, teraanga gi yaa moom yéen bokk. léegi comme que moom moo indi tàndarma yeeg dog euh, ndox mi nga dog ci day am ci tiyaaba mu ngi mel ni yow nga oor rek ba dog ah jot nga wax benn waaye ne ko même sa tàndarma ma dogee ci pour lan pour moom mu am tiyaaba ku xoor comme yow. Hmm? Hmm. kon noonu la ñu ñu jëflante ko ci biir bañ di fiirante añaananteeg soxarante ak yu deme noonu euh, suñ ko meree jàmm rek moom mooy am. ñun ñëpp yàlla dana ñu gërëm dina baax dina neex fitna yeeg rayante yëpp dana fi jógee yal na yàlla def jikko yi ci mboolem koo xam ne julit la in uridu illa islam astantuma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh